mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international ginnaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene na jukkil Kawtef yi fi jot a ci kàllaamay wolof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 ah bailleurs bala ñoo mën a d' accord day waroon a diglu ministre bi mu wax ba pare. wala ñu diglu ministre ndax ndax ndax ndax waa ñuy teg si capital bi ki capital bi la concerné. rek la yem fi la yem waaw. génn génn. soo a tënkee <laughs> loo xoolee ça code xam nga affaire yi boo xisee génn si bi xutaan ba ba ngay àgg Touba fu mën a doon foofu bokk ci wàññi teg. waaw loolu loolu moo ñu li ñuy metti da koo gëstu. nga ministre moo ko wax. ah oui moo ni wàññi teg yi mi ngi mi ngi concerné capital bi. rek waaw. te loolu président Macky Sall ñun waxuñu ko dañ de day wàññi dund bi te président Macky Sall buy wàññi dund ko leer daa war na wàññi kaw ga. Mm-hmm. bu wàññi woon la muy jaar ca kaw ga. yokkal leen seen prix gerte ak seen prix dugub taxawu seen mbay après fii si Dakar mu bàyyee ñu ñu dëbb dëbbal. ku am loo jëndee bu roog ton ngoon ko ku am loo jëndee loo ndékkee nga ndékkee ko ku am loo añee nga añee ko mu yem si capital bi bañ a wàññi àll ba loolu amul njariñ àll wàññi àll ba moo gënoon a am fii ndax fee lu waay fortaat fii yaa ngi kon nag mu wàññi fële fële ñu mën a lu ñu am ne jënd si sunu diw ak sunu ceeb lekk moo gën muy wàññi capital bi loolu daal naqari nañu trop kon nag bayeer yi nañu dem sa kaw ga nemmeeku leen xool leen ba xam ñoom lan la ñuy jëndee ñoo kaas wàññi te loolu kii bi loolu mm, li ngay wax ni maanaam lu jëm ci wàllu la bayeri waa location bi bayeri ñooy location ñoo bayeri bu ñëwee ca kaw gaal ñoo yaakaar ñu ñëwaat bi Dakar bayeri bayeri ñooy location bi maa waa location bi nag nangu na yow d' accord mais commerçant yi lañu wax ni. ñoom ñoo dëgër bopp lànk kandaare. mais bayeri moom d' accord nañu ak waa ñi ngi daal ak ciment bu cher beeg fer bu cher bi ñoom d' accord nañu. waaw man de man ah. topp naa ko yaatal baax ci location parce que na solo. waaw topp moom dafa bëgg a xool ba xam way bi weer bi daa war a fay wala warut a fay. a am. wàññi nañ waaw nee na wàññi nañ ba xam day day wax loolu lay fay. ba beneen weer bay dikk mu doog ñu doog koo activé. mais na fay weer bi li mu fay ba beneen weer. bu mais lii ngay wax ku ci war a communiquer. loolu ministre bi. ministre bi ah. sax communiqué communiqué ñun ñii di kaas naan nangu nañu nangu ñoo war a leeral nii

mi ngi noonu alaaji euh, mu mel ni daal waaju dund gi gars yi respecté wuñ ko man moom dama daan jëndee laa jëndee ba léegi de banaa bari naa ci morom mais bu dee ci location bi ba léegi man xamaguma fan laa fare ndax kamay luyee waxaguma dara donte neen bàyyir d'accord nañ waa xam nga euh, Assane <coughs> euh, li nga xamante ne bi moom la wax ministre bi wax parce que dégg naa wax na dëgg ministre bi nee yokk yi wàññi gi dund gi mi ngi concerné Dakar ah erreur de communication parce que boo mënta wàccee Sénégalais mm. euh mm. parce que bu vous té da Dakar rek la euh amna ñu bari ñu Dakar bi di liggéey manam ñoy dundal du dëkk mm-hmm. dépenses lay ko dara mm-hmm. euh, ta bu vous da nga né Ndakaaru rek nga le mbir mi yem hmm. loolu baaxul ci communication buñu xolé xoolee élection yi génn fu ni mu demee hmm. day melni ni kon président dafa am ñu muy neexal hmm. ño xamni perdre na fa ni mu perdre Dakar nit ñi mën nañu interpréter façon interprétation bu ne malgré sax mën na bañ doon lolu parce que coût transport bi la wax ni moo tax ak et cetera mais yoyep yëpp waroon na ko mëna a subventionner fexe gérer lolu nga xam ne buy wàññi dañuy laal Sénégal bi yëpp mais pas ñu ne Dakar yéen mën ngeen a ndaataata lax mm-hmm. ñeneen ñi moom muñ leen mm-hmm. xam nga yooyu <coughs> daf du rafet ci dégg-dégg mm-hmm. donc moo tax mbir mi da nga koy mën def ko mënoo ko nga ba def dara ci tëree ba dara kooku lu yàqu moom te mu toll nii nag lii ku munut bawut la parce munu ko Mhm. donc dafa war a ba mais muy jéem léegi jéem boobu indi na ñaari sénégalais. waaw te ñaari sénégalais amuñ ci réew mi. parce que tey jii carte yi ko fal. bi ñu koy fal daanaka monde rural bi def nañ ci loo xamante ni bii tey euh, lu extraordinaire. mais bul fàtte nag soble yokku woon na Touba te yokkul. fii mais xam nga yokk ñooñu yokk googu dafa jaaduwul. maanaam yokk nguur di def. Mhm. ak yokk goo xam ne waa ju jékki-jékki rek yokk. soble loolu ah, bokkul. d'accord nga bii. wàññi dafa am Sénégalais yëpp di déglu ñu ne dinañ wàññi dund gi. Hmm. maanaam kane Thiès kane Tamba kane yëpp ñu ne mi ngi am espoir ne dund gi léegi léegi ñu ne wàññi nañ ko. Hmm. kooku am espoir nga ne ko waaye yow bokkoo ci. ci loolu seppi nga ay Sénégalais loolu rafetul. Hmm. loolu ci boppam moo neexut ci dégg-dégg. donc foofu man defe naa ni euh, njumte gu rëy xaw ma ko ko xelal. waaye xelal na ko du ñaaw. waaw parce que a wàññi sax a gën. waaw lii. Mm, waaw parce que bañoon a wàññi zone bi gën li nga xamni moy li li xew ci wàllu dundu gi leneen li am ci wàllu dundu gi aussi tamit commerçant yi amna na go xamni dinañ koy faral di def mooy lan tappale gi ci njëkk mooy damaa jëndoon marchandise jeexalaguma il faut ma continuer di ko loolu ba mu jeex mm. te bu ñu yokkee ñu ci bari ci lendemain bi dañuy yokk doonte nag am na ñu jup ñoo xamni ni bu ñu yokkee bu ñu yokkee am na ñu man gis naa commerçant yu jub yoo xam ni bu ñuy jëndee marchandise ñu ne marchandise bi yokk nañ ko dañuy maintenir prix bi ñu ko doon jaayee ba keroog seen stock bi di jeex mm-hmm. xam ah, parce que sama stock ni bu mosaan a yokkee nii lay doon donc boobu dina comprendre mm-hmm. tey gis nga sooy lu jëm ci wàllu yokk ak wàññi mm-hmm. lii dañ cee di bàyyi xel gis nga euh, commerçant yi. Hmm. war nañu bàyyi xel état war na bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñooy détaillant yi parce que saa yu ñu wàññee problème bi ñuy indi du grossiste yi mais détaillant bi dañuy indil problème ak client bi. Hmm. parce que ñoom la ñuy numéro vert yëpp pour ñoom la. Hmm. parce que détaillant yi ñoom ñoo mën a suivre parce que dañuy leen di tegal système boo xam ni grossiste bi li mu leen di jaayee ñoom buñ ko jaayee duñ ci génn. te ginnaaw bu ñu ko jaayee duñ ci génn ñoom bu ñu bëggee fixer yenn prix yi du dem parce que dégg naa léegi nee lu jëm ci wàllu suukar yooyu ñoom dañ ci parce que mënuñu koo jaay génn ci dañ koy arrêté. Hmm. te bu ñu ko arrêté léegi suukar manqué. Hmm. bu boobaa suukar si day nekk ci magasin yi kat ba yow di nga weer na dee nga dem jënd saaku suukar rek sa doo ko def. Hmm. parce que da ngay ñëw jënd ay kilo affaire yooyu moo lay jaay kilo mooy boutique bi. si boutique boobu nag dañ ko war a eh, lii ngay jaayee waaye lii ngay jëndee. dafa dañoo war a wax li muy jëndee bu ko defee moom mu xam ca grossiste ba dama fa war a jëndee. waaye mais moom li muy jaayee rek lañ ko wax te moom la ñu moom yabale ko. mais bu teewul takk nag. waaw nit dina dem jënd ni muy jëndee saako ceeb. waaw jënd bi dina dawlin dina ko jëndee saako suukar te kër. waaw fa mais donc loolu ki am moyen moo koy def mais am nga koo xam ne son mu jour au jour lay dund. si maanaam day dem marché. sax pour daal soxla sax da koy xaar mën na ko xaar ma dem marché. yónnee la dépense. d'accord kooku mënta jënd saaku suukar di teg këram mënta jënd saaku ceeb hmm. donc ñooñu il faut que ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni bii ñooy détaillants yi parce que bàyyi xel boobu dafa am solo te nag dañ leen war a bàyyi xel parce que dañ leen waroon wax ne leen yéen détaillants lii ngeen war a jëndee saaku bi en gros bu ngeen ko jëndee lii nag lii ngeen ko war a jaayee par kilo d'accord mais waxuñu leen ko c'est bon léegi ñu dem ci bailleurs yi nga xam ne ñoom pare nañu pour d'accord président Sall ci waxam waaw euh, mooy li ñuy wax ci kaw rek waaye ku ca nekk tamit wéet ak sab client hmm. ñu xool ndax yow mii tey après léegi di nga ñu ci mën a wax lu leer ginnaaw bayeeri d'accord nañ hmm. euh, sa waa ji dina la mën a wax ndax wàññi na wala wàññu ak ah, suñu waaj ah waaw suñu waaj suñu waaj yi ñu ne danañ ña bokk naaw d'accord ngeen ñëwal ñu defaat mbir yi xoolaat yëpp yi est-ce que ça xam nga ne soo jógee fii dinaa dem ci moom wuti élément ah, waaw parce que nee nañ bayeeri ci la dinaa dem ñu def ci moom reportage. waaw ah, moom dinaa ba yéen bàyyi li ngay wax kay lay commencé. bu ko defee weer wi di ñëw nag. waaw allah bu defee ñu tout a yabal ne. waaw nga gis waay. macha yàlla euh, métti na lool métti na dañoo am yërmande daal xam naa ko yeewoon sama maam ni ko am na ab buy jar un milliard terrain bi ñuy jaay ay cinq sama maam dina ne lii mënta nekk loolu moom wax dëgg yàlla doy na waar lool location bi cher na na borom kër yi li ñuy nag vraiment metti na yi dal leen ak jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international